justice boobu nag ñun daf ñoo yàgg lor dama bëgg a fàttali senegal yi ndax fàttali day jëriñ boroom xel bi ma commencé dund naa man ba 2016 musuma am affaire ak justice jàng toppatoo sama yaram toppatoo sama diine dem liggéeyi kenn musuma xam ci dara 2016 laa commencé jëflante ak justice te ma ngi méngoog bi ma duggee ci politique ci laa commencé jëflanteeg justice 2016 ba léegi lu ne justice teg na ko sama ndodd pour bëgg maa lor ak bëgg maa gàllankoor te tegu ko ci dëgg nag ma limal leen ci yenn ma fàttali leen ni daaw jéeg bi ñuy commencé seen complot bi woo nañ ma ne ma naa dem uy ji section de recherche boobu jamono dama amoon sama malaanu kiiraay yoon ne kenn mënul woo député bu am malaanu kiiraay wala nga jàpp ko lu dul rek teggi nañ malaan boobu ñu teg ci dara juge bi nga xam ne moo fi newoon juge d'instruction daal di yónnee assemblée nañu teggi sama malaanu kiiraay te jamono joo xam ne procureur bi nga xam ne moo yor bi tudduma ci dossier bi moom x la wax mooy ku ñu xamagul assemblée nationale ci base boobu mu teggi sama malaanu kiiraay te ba mu koy teggi commission bi ko waroon def méngoowul ak charte assemblée nationale bu ñu jógee foofu ñu woolu ma le 3 mars 2021 ma jóg di dem tribunal ñu attaqué ma fii ci rond point ci rond point jàpp ma yóbbu ma section de recherche téye ma fa juróom benni fan yoo xam ne kenn ci Sénégal xamuloon ci yenn anam laa ne bu dul woon taxawaayu askanu Sénégal kon tey jii du ma toog fii di wax ak yéen maa nga rëbës loolu tax li ñu bëgg a def nii mënuñu leen bàyyi ñu def ko xam ngeen ndax lan loo xam ne fukki bakkan ak ñeent rot na ci ngir bañ injustice bañ tappale ak bañ jaay doole ñu teg ci ñaari weer Macky Sall ne fu ma tegoon dossier bi fa laa koy delloo si wéyale ko comme dara amul ñun suñu seetaanee loolu duñu ñu gor parce que xale yi nga xam ne seen bakkan rot na ci dafay mel ni dañ leen trahir ak li xew ci Sénégal yépp ci jamono jooju te weesuwul benn groupe nit bu ndaw nous sommes 17 millions de Sénégalais groupe bu ndaw a ndaw ndaw ne ñoom dinañu def leen neex ci réew mi ñu jàpp ma foofu forcément ay affaires yoo xam ne wax naa ko léegi ci nasaraan ba keroog le 8 bañ may yóbbu ma déedéet avant le 8 le 5 defe naa ñu may yóbbu ci juge bi samay avocat dañoo bañ ñu ñëw teewe te yoon dafa ne kenn ku nekk am nga droit avocat te juge bi amul droit déglu la te sa avocat toogul yéen ñëpp gis ngeen bës boobu avocat yi dañoo taxaw ci buntu juge bi di dóor ci bunt bi di ko fëgg pour ne ko ubbil parce que dañu am droit dugg lu kenn mus ta gis ñu jógee ci loolu ñu ne def nañ ma contrôle judiciaire ñaari at ak lu tegu nee nañ Ousmane sonk amul droit tukki amul droit dem faju ji wala su amee mbokk ci bitim réew wala comme maire la amul droit dox ay njëriñu maire yem comme maire yëpp niñ koy defee lépp ñu xaj ma ko lépp ñaari at ak lu ci tegu li ci may gën a yéeme saa su ma bindee ne leen damaa war a génn fii ñaata nit ñoo nekk contrôle judiciaire ña ngay dem di ñëw am na maire bu leen ko wax fii nee na depuis 11 ans maa ngi contrôle judiciaire te maa ngi tukki tey ci suba rek la ma yónnee message ne ma maa ngi doog a ñibbisi mennum Ousmane Sonko la ñu ne amul droit dox wala mu génn réew mi te saa su ma bindee ne leen damaa bëgg a génn tontu sax duñ ma ko def maa xam jàll duma sax tontu te yoon dafa ne su ma bindee daf ma war a tontu ne ma dinaa ko def wala du ko def ñu dellu ci. Maham Diallo instruction bu bon bu ñaaw bi mu instruire dossier bi dossier boo xam ne certificat médical ñëw na taxaw ne leer nañi Sénégal yëpp gis ko gynécologue bi nga xam ne moo yor affaire bi ñëw ne man gëmuma lii yàgg naa liggéey am naa 23 ans de de de métier bu ma gisee dinaa xam lu am ak lu amut lii amut teg ci ne ñoo ngi koy xoqatal di ko menacer toj nañu otoom. daj nañu këram teg si ne Gabiso ak Mamour Diallo ñëw nañ di ko proposer xaalis bu bëri pour rek mu soppi PV bi loolu rek jeexaloon na dossier bi suñu nekkoon ci réew bu jaar yoon loolu rek teg nañ dossier bi fële ñu jóge ci loolu ñu ne ah ay prélèvement la ñu defoon prélèvement yi réer na juge bi bi mu ñëwee fekk fi prélèvement sele amul mu dem bind euh, kii bi mu dem bind ñi nga xam ne centre bi nga xam ne moom la nañ ñëwoon moo def affaire bi def ci pression boo xam ne pour ñu bindal ko li mu bëgg a dégg mu téye ko ne léegi dugal naa ko ci dossier bi ñu am enquête interne gendarmerie boo xam ne ñu ngi ko téye ñun maa ko jox juge bi loxoog loxo ci enquête bi ñu gis ni Serigne basiru Gueye PV bu njëkk bi da koo manipuler dugal ci ay photo yu bon changé ci ay paragraphe rek pour mun charger ma loolu tam jeexaloon na dossier bi dans un pays normal moo tax ma déposé woon plainte contre moom ñu toog dégg ay audio yu génn ki nga xam ne moom na ne moom lañu ñu siif moo ñëw taxaw ne musutu am sequma sax dara ak moom juge woo ko ne ko lii sa baat la wala su baat mu ne sama baat la waaye dama doon caaxaan dama doon kaf yooyu yëpp am fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne suñ ko doon topp fii mun naa gudd malgré tout Omar Maham Diallo ne man Macky Sall nee na ma naa renvoyé dossier bi il faut ma renvoyé dossier bi